waaw tey suñu euh, taxawaay ñun ñëpp defe naa benn la mooy taxawal suñu réew taxawal suñu démocratie xam nga wane ne dañu am ay droit yoo xamante ne dañ ko bëgg bafoué te bu ñu toogee jóguñu rek day mel ni ñun dañu nangu loolu donc euh, comme je l'ai dit tout à l'heure quitte encore benn combat boo xamante ne malheureusement suñu ay grands parents mené woon nañ ko fi ba pare mais ñun dañuy tax ñun ñooy war a taxawaat tey teew xeex ko ba mu jeex ko parce que suñu bàyyiwee noonu rek du du du baax day mel ni ñu fi nekkoon avant ñun li ñu def yëpp day mel ni dañ ko bàyyi mu tombé en vain. noonu la noonu la noonu yi demee tey noonu la ko yàlla na namee feetu jigéen ñi tey dafa doy waar am benn euh, événement bu ñëw laxasu mais kontaan naa trop gis ni jigéen yi ñëpp ñëw taxawal seen bis rassemblé wu wane ni que nag tey jigéen ñi nekkuñu ci waañ yi wala nekkuñu ci salon de beauté yi wala et cetera comme ni ko ñenn euh, yenn ñi ñu bëgg a gisee wane ni que jigéen yi jóg nañ pour seeni droit et kenn ëppalewu leen wàll ci réew mi donc maa ngi ñaan ñëpp ñu jël exemple ci loolu taxaw taxawal seen ay droit euh, déjà balaa may commencé man lu ma njëkkoon choqué mooy nouvelle bu ma dégg tey j'ai entendu que y une femme qui était décédée euh, man nekkuma moon dakaar sax nekkuma woon Dakar euh, j'étais un peu loin dama toog rek jékki-jékki dégg nouvelle yi donc man fu mu toll nii sax awuma info yu baax yi donc dama dégg loolu noonu rek je suis répugné indigné Euh, dégg ni j'ai juste vu deux deux nouvelles laa gis ni que tey am na benn jeune bu ñu rey bu bu yoroon drapeau ak une femme que qu'on a qu'on a tuée et ça loolu rek ça m'a ça m'a tellement dégoûté que je pouvais pas mënatu moon mën mënatoo dara instant dëkk bi nu mu mel nii mënatoo def dara moi je me suis marié hier mais mënoo <laughs> mënuma dund tu vois parce que c'est pas bi mooy priorité bi et ñun on est là pour le Sénégal on est là pour représenter c'est la journée des femmes Euh, les femmes sont là, les hommes sont là, il n'y a que les femmes qui comptent, il n'y a que le Sénégal qui compte et l'autre monde est quoi. Jeunesse sénégalaise, moi je les comprends en fait. Je les comprends, parce que dëkk bi toll euh, dafa sës en fait nit yi dañoo sës et on sent l'injustice, on sent euh, l'abus de pouvoir, on sent euh, euh ay plein de plein de plein de mbir yoo xam ne daal neexul neexul kenn neexul kenn neexul benn sénégalais même étranger yu nekk fii neexu leen même étranger yu nekk yeneen dëkk yi neexu leen donc jeunesse bu mu leen di lu mu leen di conseiller mooy déjà on est fier de de de tout tout le peuple sénégalais parce que dëkk bi musul mel ni on n'a jamais vu autant euh, les sénégalais unis vers une même cause étant la justice xam nga maa ngi gis ay images. Euh, Euh, place place de l'obélisque maa ngi gis ay image euh, université tout le monde est uni tout le monde veut la même chose c'est-à-dire la justice et on va pas se ranger et nu ñu xam ne na gouvernement bi na état bi xam ne on va pas bi yoon ils vont pas nous la faire du nekk ay waxu wey non calmez-vous rek ñu calmez vous quoi on veut quelque chose et on l'obtiendra par A ou par B. situation actuelle bi defe naa ni ñëpp ñoo ko gisandoo li fi xew ci réew mi umpul kenn ah donc maa ngi ñaan davantage ñi nga xamante ni ñoo ñu jiite. ñu privilégier la retour à la paix dëkk bi amaat jàmm nun koy defee mooy ñu libérer ñi nga xamante ni mooy innocent yi ah ñu bañ a bafouer démocratie réew mi ah injustice bi am ci réew mi dafa doy il y trop de morts te defe naa ni doy na sëkk donc ñu ngi leen di ñaanaat davantage ah nañu privilégier le retour à la paix jàmm amaat suñu réew parce que ñun jàmm la ñu xam ngay jox sa ma ne dama leen di conseiller rek nañ génn défendre li nga xamante ni mooy suñu suñu suñu suñu suñu démocratie réew parce que ñun amuñ suñ lu dul suñu réew. parce que lii xew nii buñ ko bàyyee mu jàll peut-être que dina répercuter suñu doom yi wala suñu sët yi ah. moo tax nag ma teel a ñëw tey pour participer ci ci ci ci ci marche passive bi nga xamante ni suñu suñu ay suñu ay sœur ah suñu ay yaay suñu ay suñu ay suñu ay rakk ñoo ko organiser ah. te li ñu fi indi. du daraay violence violence indi wuñu fi ah parce que bëgg nañ ëllëg bu ñuy lim ñu boole ñu ci góor ñi nga xamante ne ñoo taxawoon ci kanam ah jàkkaarloog population bi jàkkaarloog état bi ne leen déedéet ñun suñu démocratie réew kenn du ko yàq ñun déedéet dañoo bëgg justice am suñu réew ah loolu dong moo waral teewaay bi. tey journée bu am solo la ci wàllum jigéen ñi donte ñun sax dañuy sargal suñu yaay yi suñu sœurs yi muy 8 mars beneen bi tamit mooy euh, gën a ñaaxaat population bi gën aussi. Euh, yëkkatiwaat suñu baat di ko jëmale ci ci suñu njiit yi pour wax leen ne Sénégal bi nga xam ne moom moo nekk seen loxo Sénégal bu sacré la euh, war ñu ko yamale rek ci politique mais ça va au-delà de ça c'est-à-dire que jàmm bi nga xam ne parce que bu ñu lay jox réew jox nañ la ko ci jàmm lañ la ko joxe donc danga war a def lépp pour jàmm am donc euh, loolu moo waral sama teewaay mais aussi di lancer un message à tout la jeunesse ñu gën a déterminer waat gën a xam ne que démocratie ci c'est pour le peuple et par le peuple donc euh, maa ngi kontaan bu baax ci teewaay bi fa ñëw jàppale suñu ay sœurs parce que vraiment woote bi ñu woote nii c'était normal ma jaar fi quoi. lan ngay wax bi. waaw jeunesse bi li ma leen di wax rek mooy ñu gën a conscient euh, comme ni ñu ko defee suñu album bi mujj yaama télé message yi ñu ci jàllale le pouvoir et l'argent ça rend fou euh, jot nañu jëli li ñu moom jikko jamono la message yooyu yëpp ñu jàllale foofu dañu dañ dañu nekkoon en alerte par rapport ak li am nii donc jeunesse bi dañ leen di waxaat rek ñu gën a garder waat espoir ñu xam ne que euh, Sénégal bi ñu nekk nii nekk na réew boo xam ne àdduna bi yëpp daf ko teg bët bu ñu xeeb suñu bopp nu ñu xam ne que aussi euh, l'espoir est permis et fi mu fi ñu toll nii jamono bi ñu toll nii gaa xol yi xol yi jóg na euh, nit ñi am nit ñi nit ñi jaaxle nañ waaye bu ñu bu ñu bu ñu booloowee je pense que war nañ mën a trouver ay solution bon xam nañ lépp situation yi nu mu demee dëkk bi yëngu na ah, nguur ngi yëngu na et puis voilà tout le monde ñëpp ngi ñaxtu parce que li xew xam nga gars yaa ngi dee et cetera donc je me dis que aujourd'hui spécialement journée de la femme ce serait bien ñu ñëw taxaw xam nga soutenir jigéen ñi soutenir un peu les gens pour les montrer carrément que nous sommes à côté d'eux mais aussi ce combat c'est pour nous ñun ñëpp la concerné quoi donc aujourd'hui tey la moo waral sama teewaay tey fii nii quoi. di leen ñaan ñu gën a def attention parce que je me rappelle j'ai fait une vidéo euh, sur les réseaux pour appeler un peu à une manifestation pacifique mais avec la manière pourquoi avec la manière c'est-à-dire moytu yàq yi moytu un peu xam nga euh, vandalisme bi et cetera parce que tey lii ñu yàq ñu ñoo ko moom. lu ñu xool nan la ñuy manifester parce que tey suñu kàddu ñun ñoo ko moom tey lu ñu wax tey mooy parce que ñun moom dëkk bi. donc essayer de voir un peu dans la manière comment régler les choses et puis affaire yi jëm kanam parce que tey lu mu dee dee dee lu dul dëgg du yàgg situation bi dañu def yëfu patriote on a pris position et notre position c'est la position du peuple c'est pas une bataille que nous faisons pour Ousmane Sonko ni une bataille que nous faisons pour Macky Sall. mais c'est une bataille que nous faisons pour la démocratie parce que Sénégal amul lu dul démocratie bu dul démocratie amul leneen lu ñuy tuddee ci yeneen réew mi kon suñu démocratie boobu du ñu nangu kenn ku ñu ko yàqal réew bu jàpp naa ne bu amul opposition amul démocratie et on a vu que temps yi yëpp leader opposition yëpp dañ leen di jàpp on salit leur casier judiciaire et on laisse partir donc loolu day rey suñu démocratie et looloo tax ñu jug tey jii pour xeex loolu noonu. parce que je suis déboussolé am naa lu ma metti et ruus naa lii am ba jàll te gisuñu ñi man maa ngi ak peuple bi j'ai très mal metti na ma trop de voir des jeunes perdre leur vie des jeunes tués assassinés pour lan parce que dañ doon xeex pour seen démocratie on les regarde dans les yeux on leur tire une balle loolu mënuma ma ko imaginer pourquoi ñooñu lan moo tax ñooñu dem mënoon na nekk man et je me dis que ñun ñëpp ku si nekk war nga am lu la métti pour ñooñu parce que eh, je dis comme ni ma ko waxee sànq ils seront toujours à toujours des martyrs des guerriers sénégalais et que seen famille mën nañ am lu leen neex mën nañ am fierté si ñooñu parce que deewuñu pour leneen lu dul seen dëkk. gis nga 8 mars bu bu bu gën a significatif pour jigéen ñi je pense que amul si Sénégal depuis lors waaye un 8 mars où toutes les femmes sont door di xeex pour la démocratie aussi de leur pays ñun ñëpp ñu booloo nekk si biir góor ñi ba dégg naa jigéen ñàkk na si bakkanam loolu c'est un signal fort et bu ñuy wax changer le système c'est pas des aux politiques de le faire c'est à la population et aujourd'hui gis nañ ni jigéen ñi kenn jiituwuñu leen si loolu kon seen feetu 8 mars bi pour man bii moom a gën a neex seen feet parce que maa ngi ci seen biir jegelen leen et je soutenir toute la vie et tey jii quoi pas suñu prochaine un ah, président de la république nekk jigéen ñu jël réew mi jox ko jigéen pourquoi pas c'est pas exclu parce que vous pouvez tout faire ëpp lu ñu ci réew mi dara gëm ngeen seen bopp et gis nañ ni léegi pare ngeen pour wàcc ci terrain bi pour xeex pour la cause sociale